Nous sommes tous témoins que depuis l'avènement du régime de Macky à la tête de ce pays, la dame justice est utilisée pour martyriser, éliminer et humilier les adversaires politiques. Dans ce pays que le premier, c'est dans ce pays que le premier magistrat affirme avoir mis son coude sur certains dossiers incriminant ses amis politiques. C'est dans ce pays qu'un directeur émet de, faute, de fausses facturations Et au lieu d'être sanctionné, il est Premier ministre de l'enseignement supérieur. C'est dans ce pays qu'un procureur est démis de ses fonctions en pleine audience parce qu'il voulait faire bien son travail. C'est dans ce pays qu'un magistrat qui a pris une position publiquement sur une affaire est choisi pour instruire le dit dossier. C'est dans ce pays qu'un ministre des Finances affirme que des irrégularités constatées sur un montant de 6 milliards est une irrégularité négligeable. C'est dans ce pays qu'un député de la nation déclare avoir détourné de l'argent au sein de l'hémicycle de la représentation nationale. C'est dans ce pays que les députés de la nation fabriquent de faux billets et de faux passeports diplomatiques. C'est aussi dans ce pays qu'un ministre de la République accuse de hauts magistrats de la Cour de comptes d'être des politiciens encagoulés après un rapport accablant. C'est dans ce pays qu'un procureur introduit sciemment des images compromettantes pour charger un leader politique dans le seul but de lui empêcher d'être candidat aux prochaines élections. Et la liste est loin d'être exhaustive. Tous ces actes restant impunis marquant ainsi la rupture de confiance entre la justice et les citoyens, nous amène à poser ces questions légitimes. Comment voulez-vous nous faire croire que, la justice, que cette justice est indépendante et impartiale Comment voulez-vous nous faire croire que Pro va bénéficier d'un procès juste et équitable Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne veut pas utiliser les mêmes procédés qui ont éliminé Khalifa Sall et Karim Wade Ces interrogations nous amènent à avoir la position suivante. Le président Ousmane Sonko n'ira pas répondre à une convocation pour un semblant de procès qui n'est rien d'autre qu'une cabale politique. Le camp du pouvoir répète toujours ce qui s'est passé au mois de mars 2021 n'arrivera plus au Sénégal. Nous leur répondons à ces termes-ci en citant un adage bien connu de chez nous. L'arbre que la tempête va renverser ne voit jamais l'orage qui se prépare à l'horizon. Le président Ousmane Sonko est notre dernière chance pour un changement radical de notre modèle de gouvernance. Ah ah Toute la jeunesse et en particulier les étudiants de l'université Cheikh Anta sont debout pieds fermes le projet PASTEF dont il est la vitrine. Le président Ousmane Sonko est candidat en 2024 et il à informer l'opinion nationale et que Macky sera tenu comme responsable de tout les jours à venir. De façon, les étudiants de à travers le territoire national, ont tous fait leur testament à la suite du pacte de Kermassar. Gatsa Gatsa, la patrie ou la mort nous vaincra. asalaamaaleykum mbokki étudiants yi gannaaw bu ñuy nuyoo mbokk journaliste yi ñëw tey teew suñu point de presse yaakaar naa ne bii mooy énième point de presse boo xamante ne Pastef Pastef mu ngi koy woote à travers le territoire national dans la diaspora lii moo wane ne nekku ñu nitu ay dañuy artu mais nag xam ngeen ni Sénégal fu mu toll nii yéen yëpp xam ngeen ni justice nekku fi te ñun ñëpp a ko seede léegi nan ngeen mën a comprendre que président de la république wax ni am na dossier yoo xam ne moo ko aaye kenn du poursuivre ñooñu pourquoi parce que ñooñu dañu nekk seen xarit dañoo bokk parti politique nan ngeen mën a comprendre qu'un député de la nation dugg ba assemblée nationale ni man détourné naa xaalis te kenn topp ko nan ngeen mën a comprendre qu'un ministre de la justice dit qu'il s'en fout du droit Macky Sall mooy sa sa sa son candidat te xam na moom moo bind constitution moo limité le nombre de mandats wax na ko bind na ko wax na ko partout dans le monde nan ngeen mën a comprendre qu'un magistrat bi nga xam ne dafa bind ci page Facebook am ba pare ne dafa bañ Sonko kooku la ñuy désigner moom moo instruire le dossier bi nga xam ne moo ko renvoyé devant le juge nan ngeen mën a comprendre qu'un ministre boo xam ne moo yor suñu xaalis ne six milliards bu ñu ne ci Covid 19 bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko cotisé ci dëkk boo xam ne dañoo ndóol kenn liggéeyul kenn lekkul kenn naanul nga ne six milliards yooyu du dara nan ngeen mën a comprendre justice boobu ñu koy utiliser di éliminer ay adversaire politique waaw loolu lépp buñ ko gisee justice deful dara justice mosul ci wax dara léegi ngeen bëgg a wax ne Sonko na dem wuy ji justice boobu Sénégal daal xam naa ne daal ay naafiq bëri nañ fi waaw lii day mate waaye dugalal sa loxo rek loolu kan moo koy war a wax nit bu nekkoon sa doom di nga ko wax bu nekkoon sa papa di nga ko wax Ousmane Sonko mooy suñu candidat en 2024 ah, amul plan B amul plan C Ousmane Sonko wala réew mi dinañ ko takk dinañ ko laal dinañ ko def doom ñun lu ñuy wax ragaluñ ci daara dëkk bi ñun ñoo ko moom de ñun ñoo ko bokk kenn mënul njool ba sut askanu Sénégal justice dañ ko am may may doole ne ko jugel sénégalais mais boo koy def amul xaj seen boo koy def amul di gënalante nit yi dafa war a nekk en équidistance avec le citoyens loolu bu amul nag Sénégal mi nga xam moo ko joxoon pouvoir boobu da koy fokkati jëlaat ko nekko ko du fa am ñun pare nañ de xam nga Ousmane Sonko deux nee na Kër Massar moom def na testament mais ñun ñi ñëpp nga gis nii def nañ testament bi après ñu ngi wax ne mu ngi mu ngi mu ngi ñu ngi wax ne mu ngi wax ni lu amoon deux mille lu amoon deux mille deux mille vingt et un mois de mars loolu dootu fi amat mais lu raw loolu moo koy moo moo fi amaat dafa minoritaire dans le pays mais i UCAD amu fi dara tous les étudiants sont avec sama gars yi wax ji leer na lenn rek la ñu bëgg mooy Ousmane Sonko bu mu nekk candidat en 2024 te lool du wuy ji du dem fen étudiants yi seront les combattants ñi nga xam ne ñooy taxaw ne Ousmane Sonko du dem te lu mu ñu jaral nag jaral nañu fukk loolu rek la ñu bëggoon a wax ne gat sa gat sa gis nga affaire yi c'est la rue qui va régler le problème. C'est pas la justice qui va le faire. Et nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre ce, ce projet-là. Nous sommes prêts di leen sant di leen jox rendez-vous ci maa ngi tudd maa ngi tudd Jami Faye di coordinateur Pastef UCAD université merci jaa ngeen jëf merci